billaahi su ma xamoon ne man maa ngi dégg riit muy démb si guddi laa doog a xam ne aji la fan yëpp maa ngi dégg ay riir ñu naa aji aji saar aji saar ma ne ay waay kii dëkk Fatick suñ ko tayee di def lii ndeketoo ki ma xam la ndax aji jubut jubul de képp ku koy jàppale na ni Ousmane Sonko def leen ndànk jàppale wu Sonko jàppale wu ma Macky su ma bëggee Macky Sall dem bi demoon guddeem laa ko bëggee Ousmane Sonko su ma ko bëggee la muy wax si làmmiñam xawma nag moo ne si xolam la muy wax si làmmiñam laa la wax de te mu doon feebaru réew mi moo tax ma bëgg ko kon nag ñoom ñaar falalu ma si kenn jege buy am Macky laa gën a jege ndax moo xëccal waa guddeem courant moo def lépp aji dañ doon déggante ma koy conseil lu ne lu ne la ma doon wax ba benn jour muy def ay tojaangam di envoyé ay photo yu bon xam naa dafa jaawale numéro yi bu ko bu ko envoyé ku góor envoyé ma ay photo yu bon fu mu simee ko ba nu ko ndeyam juree lépp maa ngeeg moom comme li ma xam ne lii laa santiro moo tax dindiwu ma ko motu sa vingt jours la mu def noon kon tey nit ñi Sénégal yi jóg di wax a wax a wax wax def ndànk si li ñuy wax ay ma ne la aji éeréer yi nii nee naa leen du tey billaahi si laa ilaha illa huwa barke alquraanil karim dara darajaay bàyyi salaam laa leen géñal ak su may bakkanu doom aji raabi laa leen wax problème yi du tey man mii ak keneen ak keneen ñëpp konoon ñu ngi naan diw rey na wala diw tëdd na kaso aji dem na ñëw accusé nit si ñàkk fayda grâce mi la ok ba benn grâce aji dem na euh, accusé nit ndax loolu accusation ne de dafa liggéey weer ba weer bi jeex waa ji bañ koo fay mu dem kër goo weere yére ñu ñëw ñoo ñooñu attaqué si ñu fekk ñu ngi toog di attaaya ñooñu ñëw rek mu dëgg si kër gi ñun sax xamul lan la ñoo ngi koy tooñ mu jëkk si nii rek waaxu waxut ak kenn teg mbuus ndek ay yére jàmbur la andi noonu ne kooku da koo yoreel xaalis bañ koo fay mu jël bagage yi noonu ñun tamit ay innocent la xamul nuñ demee ay góor yàlla ni ñun daw bu ko attaque dugg si kër gi ma taxaw suñ benn xar bu ñu yeew laa bu di daaj bi téye ne ku fi dugg ma buti sa waaye buti la ngeen jégal ma gars yi ne ma xaanoo ah, dalal ñu ate mais ba femme bi waxee ñu déglu waxam déglu waxi aji laa ne ko waxoo dëgg da ngay fen ci kanamu gars yi aji noppi naa waaw nangam nangam am suñ benn mbokk bu ñëw déggalaa lool ne aji liggéeyu day wuraalu ginnaaw raay man mii di wax ak yooyu chaque jour de moo fëgg naa am di may ñaan lu ma ndékkee kon dèjà ñun bu ñu ñoo ñooñu bu ñu demee si yoon ñoo ñu gañe ñu bu ñu demee si yoon ñooñu gañe ñu man de wallaay tamit aji moom man moom gàcci la ma teg man nag du ma wax dara maa ngi bàyyi ay fenkat yi di wax naan moo ko def wala defu ko ma génne vidéo am yëpp billaahi wal kitaabi képp ku doon wax nag di nga raam Ousmane Sonko raamal ko xam ne aji soskat la fenkat la ndax vidéo bi ma yor nii su ma ko ko tegaloon dina gis boppam a ba zëdd de mais ñeme naa taxaw ne du moom ndax xam naa ko bu doon saw sa nga tee ko si loxo ne ko kii la mu ne du man sawu ma loolu xam naa ko ñun ay mbokk aji xam nañ aji bu baax ñu naa aji Fatick aji naa aji dëkkub Fatick aji dëkkut Fatick aji mu ngi dëkk dëkk bu ñuy wax euh, Maya fala dëkk gannaaw Fuujuñ dëkk bu si àll yooyu si dëkk yooyu noonu booy dem nu côté Jirna dëkk bu ñuy wax Maya fala dëkk doon jàngee Jirnda yaa ngi dégg yaayam avant muy gaañu benn militaire moo ko takkoon pa waajo militaire bu amul lu mu defalut aji pour aji yem si tojaanga yi mu doon def nii rek la ko doon bañal yëre mu jënd xaalis mu may mais dafa dem ba xam ne aji mi mën na ko andil problème mu bakk mu dem bàyyi kook sagom yëpp bettuma xaw ma ku mu bett am na tamit samay moroom ñoo xam ne bettu leen man démb rek dama wàcc si liggéey ñu ne ma aji mi ngay nii aji naa moo def lii ma ne non aji saar lañ wax ñu envoyé ma photo yi tur ma wëcc fi ma ne ma nekkoon kii lii tax réew mi yëpp ku ma xam la ku ma jege di déggantoon moom chaque jour loolu tax doomi xaraam ji nekk lii tax na wut wax ak ni ñi mais nag il faut ñu def ndànk ah def leen ndànk sama gars yi yee jàmbaar loolu la wax rek pour ñu def ndànk quoi bu baax a da man su ma déggee ki nekk ay audio France nekk naan waaw kii ay teg ay audio jigéen affaire yi daf ma jàpp ay réer ndax kooku xamu leen ko lam capable man mii xam naa ko ñeneen xam nañ man su ma xarit bu ñu Espagne fa moo ma ko yéegee mu ne ma ajiraa bi mu ne ko mu ne ko waxoo lu am mu mu xàqataay noonu quoi ni ma xaaral ma woo diw sax di mi bëggoon a taraay def loolu kooku tamit moo xool ko si ligne bi gisuma ko ma rey tëdd mu ne noo mënta nekk. aji no mën na amee noonu bës si aduna si di tass réew mi ni ñi di rayante mo xol ndeke mom la mané ne kii yabo ñu lii tax mané ki kii def ay tojaange ñi fexay pour yedd ko mu delu ginaaw ndax léegi ni ñi kula dul tak bu la def lo yenn yi affaire yooyu lu lañ nekkoon yaagoon aji ñëwaat def yi aji na ñi def nank ci mom na ñi def nank ci mom ñi di wax fi wax fale ay Ousmane Sonko makissal ak lolu man sax gëwuma ay makki ay ñoom yi ñàkk fayda yooyu dina ci dem sa bàyyi si tomb ay nit ci ginnaaw rek wala mu doon kompolom ndax moom xel moom ñu yore kenn yoru ko mën naa taal réew taxaw fee ku koy miimal na nga def nànk balaa muy bàkkaaloo yenn nit ñi def na ko fi nit ne kooku da koy liggéey loo weer ndeke 4 jours la fa liggéey ñun ñu bëggoon fee dugg ba ma bëggoon fee am problème mag man ngeen nga xam ne dafay fenn ñoo replier dellu ginnaaw moom mu dem ba d'accord ne dafa fenn ay cinq cent mille franc lu ne maa ko defal naa ko ko bañ mu foyi rek ay mille franc lu ne dama ko doon mooy mu ndékki toog fi mu toog bañ mu buusee ba ma gis wallaay la ma sin euh, maa ko jëlal taxi kalandoo mu dem ba eh, numutoo di syndicat dem ba syndicat jëlee foofu oto di ñu di Grand Yoff du ma ko faate mu yore benn mbuus gu weex ndax wax dëgg yàlla man li ñu doon teg ci deram mu ma doon metti ndax li mu amul yaay doon xale ñu bokk noonu rek fu mu dem papa bi ji dàq tantam bi wëlisam bi ñu ko balee laa la sànni ko si biti bokkoon naa fi ñu ko jàpp ak suñu benn mbokk ñu dugal ko si kër gi naxanteeg nabu nabu ne du fi fanaan ñaari fan mu fanaan fa jàppanteeg nabu nabu ne da koy génne ñu négocier nabu ku baax sagam nabu la toog nag foo naa ne ku bëgg a xam aji si lu wóor demal nga gën a raay nga laajte nabu lu ma leen wax nag euh, takk leen ko téere dëgg jëf muy mujjee ñu bëri dinañu rus ñu def ndànk bu baax ndax ki may wax xam naa ko dañoo mos a toog mu ne ma naafeq weesuwul nga xam dëgg ba pare xam dëgg ba pare te sa yoon nekku ci nga wax ca naafeq weesul lool senegal na ñun loolu la ñuy dund comme nga fekk papa ak doom di jote nga ñëw wax papa yaa tooñ yaa ñàkk jom sa doom jee am dëgg dèjà loolu naafeq weesuwul donte kat doom jee tooñ sa papa jee tooñ war naa jox papa ji dëgg soo paree yedd doom ji ñun Sénégal loolu la ñuy def da gis gis nga dóor nañ fi sëriñ daara kenn waxut kenn jógut kaas sëriñ diine yi kenn déggoo kenn ku si wax sëriñ kilifa aada yi ñu jógewaat foofu tëj fi imaam ndaw kenn waxul il faut ñu def ndànk kilifa yi tamit jóg artu ñu wax te senegaal li ñuy dundee léegi dafa doy waar bu ñu ne ŋaañee yonent bi doo dégg kenn ku yëngu bu ñu waxee luñ sofaan ci benn sëriñ àdduna bi yëpp génn waaw sëriñ diw attaque fii dugg na fii ku ne di wax dafa mel ni ñun gëmatuñ yàlla ay ngistan la ñuy dund il faut ñu def nang aji nak man duma ko jappalé ci dara ndax def maa lo, man dafa ruslo kullu dëri ñominka dafa ruslo kullu ku dekk ci ndox mi de la ruslo ndax ki do nit ku ba ñukoy jappalé tammi di wax nañ def nang du ben yoon du ñaar yoon man mi di wax ak yeen amul luma ko deful école yam don fum rom ñu naan 1000 francs rek nga laal ko dama don kaas di koy ndax ndaysan lim don jirim dama yedd ba sonn ma suma ben mbokk bu mu don andal ma fexé bañ baanté ndax aji day tek deal di santaaf ay nit loolu rek moo woon dundam ba ma koy mujjee gis bët ak bët maa ko jëlal kalandoo mu ñëw jour dimanche dañuy biig Grand Yoff man mi maa ko jëlal kalandoo waa ji naan mu ngi France yor na numéro diw tëddëg naa moom waxul dëgg na ma wax aji numéro bi fu mu commencé ak fu mu mujjee wala aji fu mu dëkk ak aji fu mu cosaanoo waxul benn dëgg kooku waxuloo aji ay mbokk ma leen ko gën a xam ñu ngi ginnaaw raay papam bi ko jur sax du wax ak aji ndax ni mel ka ko yoroon man maa ci doon wax ba kooku yore ko billaahi la si benn guddi génne na ko maa ci wax wallahi landim ba kooku dencaat ko si kër gi mootu ñaari fan kooku balewaat ko looloo ko yóbbu Grand Yoff fi yémuy def lu mel nii il faut ni nit ñi tamit defaat nag ñun ñu war a wax nag man su ma xamoon ne aji coow li moom la konoon depuis barkaati dé ma ma déggee coow li laay dugal vidéo bi yëpp si réseaux sociaux ni ñuy gis ko xam ne tamit nañ def ndànk balaa ñuy accuser nit ñi te lii ñi luy raam nag si ñag bi la jëm il faut kilifa diinay ndax lii nii dafa ëpp loxo accusation lu ñuy wax nii lépp ay pexe la rek tubaab bi tubaab bi lu ne ñu wax Sénégal yi ñiy yàq Sénégal ñi ngi Sénégal ñi war a àtte ne ñooy àtte dëgg violé weesuut milliards askan bi ñi fi ay nit yi nit sàcc ko ñu jàpp ñi ñuy changé ay faux billets kilifa yi war a wax waxuñ ki war a àtte àtte ñooñ tëj leen ñu ne ñu ngi topp Ousmane bàyyil Ousmane jàppal aji xoolal feebar bu ñuy laam-laami ñaari fan yëpp déggoo waxi corona waxi Ousmane waxi Ousmane waxi Macky waxi aji kon nag feebar bi xanaa du dëgg il faut tamit ñu yeewaat ñu yeewaat déggatoo kaay Idrissa Seck déggatoo kaay keneen kaay Ousmane Sonko rek ngay dégg nañu yeewaat delluwaat suñu xel si yàlla bu baax a baax. waaye kam naxoon jifiir kooku foog doomu nijaay la ci moom mbokk ñu jege la. foofu da doon mbaali du dàll du yére du jiin amul lu mu ko defaralul du téléphone lu ne defal na ko ko ba ko tamit ñu koy gërëm yaakaar ne moo koy takk jabar ba nit ñi yëpp àddu fi takk bi mais nag moom tamit xelam dalutoon ndax nu comporto diin yi muy def ak ñi muy santaa di tëj di def ay defam kooku di ci def lu ne mu xëy rek yëkk fi kooku ne yëkk teg ko diis dem yooyu si lay dund si lay dox moo tax ñu ma dégg man démb laa doog a xam ne moom la démb laa doo a xam ne aji raabi la nañ def nànk na ñu war a aate tamit nañ bàyyi ñuy def nii gis li ñu war a aate aate wuñ ko milliards yi ni ñuy jël denc ko war a tabax hôpital yi ñu war a faju faju defuñ ko ñun jël milliards yi lekk si seen diine yi tamit xam nga ñu bëri dañoo am wàllu si affaire yi réew maa ngi yëngu waaw ñu jox la milliard rek nga war a wax dëgg doo wax dëgg war a wax te yàlla rek tax doo wax jox la milliard ngeen ne président yàllaa ko fi teg président yéefar yi fi nekkoon di lor nit ñi sax yàllaa leen fi tegoon waaw dëkk bi Sénégal dëkk jàmm la di nit ñee fi tëdd màkka ñu gën a noonoo yenent bi ñu nga màkka fa yenent bi tëdd ko gën a noonoo foofu kon nañ bàyyi naan Sénégal réewu jàmm la réewu jàmm la dëgg la mais liñ fi gis nii dafa day waar il faut nit ñi di wax ndax kii lii ñuy jëlal paar nañ ko laaj ñi ñu ko xam ba pare balaa wax ji jëm kaw waaw ku baax jégalu rek euh, foog naa ne éti bi ñu yaroo saaga waruñu génn di média tamit di wax waruñu mais li ma xalaat rek ku yaroo si keppaaru bàyyi salaam wala ku suñ bas yar foog naa am na noo mën a comportoo si mandute fi jaamu yàlla si lu ne waaw donte que nag ay duñu dara nag mais ñu ngi jéem suñ kemtu laay kàttan mais loolu rek lañ si xool mais konoon vidéo aji démb mu ngi si YouTube bi te du ma ci nëbbu dara man mii di wax ak yéen mais li ma si sóor moo nekk loo mais nag di jégalu nag comme saaga yi moom te xoo xaw ma ne sa saaga naa ndax wax dafa bëri erreur man ngaa wax ba pare te xamoo loo wax mais nag il faut nit ñuy def ndànk man audio yi ma déglu ñu naan ay jigéen di wax benn góor naan mu ngay fanaat mu ngeeg nii maa ngi moro ndaw bi waxul dëgg kooku moom waxul lu lu am jox leen ko sama moro mu jël ma fu mu mënta mu ne ma nii aji nii na ma wax aji fu mu dëgg ak aji mos na koo gis na mel ak aji fu mu kuy bàyyi